moom benn xalaat lañ si am dañ koy rafetlu quoi parce que tamit santé publique lu ko waay jëndee rek jar na ko quoi parce que vu que ñun ñu ngi doon liggéey kenn wax ñu dara kon tey bu ñu demee ba ñuy wax dara dañuy jàpp ne dañ bëgg public bi ñëpp nekk ci jàmm ak feebar bi tamit. kon lool suñ arrangement la arrangement ñëw la parce que ñun ñu nekk receveur bi ñu wàccee tamit ñun ñooy dem waat client aussi kon suñ njariñ la. waaw comportement bi lenn la xam nga d'abord moom ñun ak client yi d'habitude sax maanaam suñ décision bëriwul am jaay ma la nga jaay ko wala fii laay wàcc nga may ko mu wàcc kon yaakaar naa am ñu benn relation bi nga xamante ni dina dina bëri ay dugg-dugg wala ay génn-génn daal xanaa kay si xaalis bu ñuy téye seen loxo ñoom di ñu ko jox. ak ñun tamit ci xaas bu ñu jël di leen ko jox lool moy wara yeen saay saa sax ñuy def gants yi nii ak masque yi mais du leneen tamit. waaw loolu moom ñun ñëpp dañ siy ànd parce que ñun ñëpp euh, suñu góor gi yaram moo nu gënal lu mën am man bu doon sama sago ñu gaare oto yi parce que moo mooy mooy suñu sécurité daal parce que fii oto yi boo bëggee dégg amul benn sécurité parce que instant bi amaguñu benn matuwaay boo xamante ni transporteur jox nañ ñu ko man man su ma amoon lu ma gën bis dañuy gaare oto yi ba yàlla jëlee fi ndogal bi parce que ndogal bi ndogalu yàlla dañ koy nangu nag xam ne lii la yàlla dogal doon doon liggéey muy neex man na bu doon sama sago bis naka tey transporteur dañu war a woo mu gaare oto yi parce que mooy suñu sécurité man mooy suñu sécurité mooy sécurité client yi parce que instant bi gis suñu client dëgg dañu lay wax ba pare fii génn fii bu ñu taxawlee ñaari client xoolal lii 19 place yëpp 19 19 19 place la la si xaalis aller retour dëgg man na bu sama sago ñu gaare oto yi ba yàlla jële fi loolu daal mooy lu ñu man daal man loolu mooy lu ma gënal. waaw waaw waaw loolu maa ngi koy dégg nag mais tey suba rek dégg naa am ñu ma koy alerté mais man yegguñ sama oto quoi mais ñu ngi wàcce clients yi si yenn bis yi nga xamante ni dañuy xaw a yeb ñu bëri quoi. saam yi dëgg la de. ba affaire yi ba léegi moom amatuñu xaalis. lay wax liggéey moom gis suñu suñu bopp. essan moom gaare sax moo gën daw nii boobu ngay dégg-dëgg parce que booy daw transport dañuy jàpp ne oto baa ngi liggéey mais oto bi liggéeyul xoolal nga yebbe fi fi ba rompee ci doo fi sax yobbu uh, téeméer bu am nu démé ki la 100 francs 100 francs da dem fi bo yebbe lu ko ëpp ñu wacc ko nga bëgg dal dawal fi ba kër kër ma Massar dafa met sama cadeau muñ mom leen la di wax receveur yi ak chauffeur yëpp ñu respecté norme yu ñuy tégal parce que norme yi suñu njariñ la njariñu askan bi la té ñun askan bi lañ fi nekkal transport en commun la kon tay ji ñi ngi wax ñëpp rek ñu top limite yi top norme yi inshallah li yaagul suñu borom dina ko jéxal légui client yi moom wax dëgg yàlla lépp jàmm client yi moom nun ak ñoom benn lañ parce que client yi ñu fagaru nu ne dem fagaru fi mu ne sama butéel a ngi na boo yëgtee moket bee téeméer mille su ma yebee client diw client toog si kanam ma may ko mu diw mu daal loolu sama man daal maa ngi aar sama bopp moom su ma wàccee même bu ma amulee gel damay jël sama saabu raxasu bu ma waree lekk ma dem lekk même nii su ma wàccee terminus oto bi laa balaa ma koy wàcc moom su ma wàccee damay de jënd jël sama bu amul omo su ma amul madaar léegi jënd euh, dem raxas sama loxo bu mu set. ñu gën a fagaru rek te xam ne nanu muñ nanu muñ muñal client yi parce que nag client yi ñoo far client yi mënuñu dem bàyyi nu ne te mënuñu dem saa client yi parce que ñun boobu ngeen dégg bu ñu demee yeb fii ba Grand Yoff yebunu suñu xool du neex parce que dunoo bëgg a liggéey dunoo bëgg a client client yi rek ñoo nu mën a jàppale te instant yi client yi benn élèves yi moom du ñu ñaan yàlla daal affaire bi nag gaaw a jeex transport moom transport boobu géen mu dox il faut élèves yi jàng te bi instant jàngeetul yebatunu daal loolu daal dañuy ñaan yàlla daal affaire yu gaaw a jeex mu nekkaat si jàmm loolu daal la ñuy ñaan parce que instant bi daal doy na waar doy na waar te xam naa ne yàlla dañ si def jàmm